ki nga xamee ni sax mooy able ngir yàlla su sartalee kooku ne ko dama lay jox lu màggat lii yow nag lu yees nga may andil ki pepp mu màggat mu jox ko mu yees wala mu larax mu jox ko mu laraxul sax mu daal di araam su fekkee ne nag kookee ñu abaloon ba muy delloo si lañ ko abaloon ci waxtu delloo si wa da koo coobarewu mu jox ko qualité bu gën a rafet loola moom sañas na ko ayut dem naa dem sax ba duñu nangu lan ko abaloon ngir yàlla bañ àggee ci waxtu fay wa nga ne ko dama koy fayee ci birub sàngam mbaa danga koy saf nga yóbbul ma ko ci birub sàngam fekk na bu la ko joxe woon fii mu la ko war a joxe moom da nga sonn ci fay transport ba ak xeetu coono yi ak yooyu wala xeet duwaañ ci yoon wi rek contrôle bi yooyu nga fexe nag ba mu di la ko joxee ci béréb boo xam ne moom doo ci am benn benn coono loolu sax njariñ lañ koy jàppee duñ ko nangu. moom daal lépp lu nit aajowoo loru ca nga xetli ko dimbali ko ci jox ko ca lay aajoom te mu lay delloo ci rek lu tol noona lu mel noona loolu sopp nañ ko lool. waaye nag dañoo bëgg ngir yàllay kese lal ko nga xam ne moom ma koy def du ca amaat beneen njariñ bu may tuyaabu jëm ci séentu ca yàlla mooy alxardu laa yakunu illa lillahi subhanahu wa taala wala yajuusu du dagan bayxun boole jaay wa salafun ak leb mbaa nga ne leble maanaam jaay ak leb mbaa leble ñaari contrat la yoo xam ne faaw dañoo war a teqalikoo dañuy jaayante ci wet leblente ci wet waaye du nangu boole yaar yëpp ci benn contrat leb wala leble nag am na ñaari anam benn bi mooy bi nga déggoon léegi mu jëfandikoo baatub salaf te ci ëpp jëfandikoo baatub alqard mooy li nga koy abal ngir yàlla taxte lu mel noona lu tol noona képp la lay delloo sil beneen leb bi ci des nag moom miin nga ko mooy li nga koy jaay du la fay fa saasa da ngeen di sàkk délai boo xam ne ca la la war a fay si lu ci mën doon rek xeetu salaf la léegi nag bu ñuy jaayante du nangu mu ànd ak kenn ci ñaari xeeti leb mbaa leble yooyu le ni ki nga ne ko marchandise mi boo ko nangoo jënd daal ma nangu laa lebal marchandise mi ci des nga xam ne kon ngir nga lebal ko moom may moom da nga koo sart ci mu jënd mii loolu yoon du ko nangu mbaa boog nga yore matériel boo xam ne da nga ci daa bay te bayatoo ci yow bàyyi nga bay nga fekk ab baykat nga ne ko nag boo nangoo jënd sama matériel bii nga xam ne bayatuma ci ma nangu laa lebal aw jiwu nga ji buñ ci àggee nga delloo si ma lu toll ne li ma la abalan rek ci aw jiwu waaye nag faaw da ngay jënd sama matériel bii nga xam ne bayatuma ci loolu ba tey yoon du ko nangu ndax abal ga nga koy abal ngir yàlla jiw ba da nga koo sart ci faaw mu jënd matériel boobee yow bëgg daal moom kenn du lëkkale jaay ak leb mbaa leble faaw rek dañuy jëflante ci wàllu njaay mu beru jëflante ci wàllu leble mu beru wa kazalika naka noonu maa lépp loo xam ne xaara na lëkkaloonte naag asalafa leble min ijaaratin ci ak yooloo yooloo mooy jëfloo nit fay ko aw kidaayin wala luye wala nga luyaas mooy lu mel ni luye oto mbaa kër ak yu demee noonu ba tey nee na li nga aaye woon léegi ci boole jaayanteeg leblente ci benn contrat ba tey noonu la ñuy aaye nga bëgg a boole leble ak defal ma mu fay la ak leble ak luye nangam leble ak defal ma ma fay la moom mi ngi mel ne rek nga fekk koo xam ne métier mën na ko lool waaye nag jumtukaay yo muy liggéey ci métier ma da koo jafe nga ne ko yow day buñ juboo mën naa laa lebal jumtukaay yi nga xam ne moom ngay jëfandikoo ci sa métier mii waaye nag ci sartu am na lu may liggéeylu loo xam ne man ngay njëkk liggéeyal ba àggal nga door a jëm ci keneen mbaa leneen su boobaa kon abal ga nga koy abal ah lebal ga nga koy lebal matériel bi nga xam ne moom lay liggéeyee da nga ko sart ci faw da lay defal la nga bëgg da nga ko fay sax waaye da lay defal ba nga da lay defal la nga bëgg door a sañ a jëm ci keneen mbaa leneen ba tey loolu moo koy yàq ba tey boo fekkan kuy jaay ka jënd waaye nag marchandise da koo jafe nga sartanteeg moom ne ko man day mën naa laa lebal marchandise moo tàmbalee jaay ak jënd waaye nag ci sartu nga nangoo luye sama place ba ca dëkk ba boo nangoo luye sama place boobee daal ma nangu laa lebal marchandise nga tàmbali ci jaay ak jënd xam nga kon lebal ga nga koy lebal marchandise moomee da nga ko sart ci faaw day luye sa place boobee ba tey looloo koy yàq kon jàppal ne albayhu ak asalaf kenn du ko boole asalaf ak ijaara kenn du ko boole asalaf ak kira kenn du ko boole wasalafu leble nga wax leble waaye able ngir yàlla tax ñu wax jaay su aji dagan la fi kulli shay ci bépp mbir maanaam leen lu ne bu ko sa mbokk julit soxlaa nga dimbali ko abal ko bu lay delloo si lu tol noonu képp yem ca dañ koy def ngir yàlla loolu lu ñu soppa sopp la nangu nañu ko nag ci lépp lépp ba mu des li mu lay bëgg a wax ilaa fil jawaar yi dara ci ay jébéer bu jamono yi jébéer amee mooy boobu jaam a ngi dox di nangu ak góor nga abal ko jaam bu jigéen boo xam ne araamu ko nit bu dee jigéen sax mën nga ko abal ngir yàlla jaam bu jigéen ne moom bu dee koo xam ne araam na ko itam araamu dappet ba tey mën nga ko abal waaye nag duy nangu góor goo xam ne jébéer bi araamu ko nga dee ko ko abal wa kasaalika naka noonu turaabul fiddati suufus xaalis tëgg bi nga xam ne tëgg wurus mbaa xaalis fa nga xam ne moom lay tiim ci suuf sa wurus mbaa xaalis ba dafa ruus loolee fay ruus du nangu ku ko jaay du nangu ku able du ñu nangu ku ko jaay du ñu nangu ku ko leble ndax xamuñu la fa ruus muy ruus it ja nu mu toll te looy jaay des ko war a xam bu wér a wér looy leble itam noonu léegi nag buñ ci jëfalantee te yoon aaye woon ko ba kañ ko jaay mbaa kañ ko lebal ñëw jeex ko seppi la ca nekkoon dañuy seet rek ku jeexale nit lu tol noona seppil ko ko rek luñ ko ca war a fay ñu fay ko moom mi nga xam ne moo seppi dañ bañ a topp nag lañ waxante woon ci wàlluk jaay mbaa wàlluk leble wala tajoosu du dagan alwadihatu sippi mi la day ni ci bor ba xalaa taajilihi ci sart ak gaaweem wala taaxiru ti jaagin yeexe ga bii ci bor ba xala siyaadati ci sart dolli ga fii ca moom takk-takk bi mooy lim ko ameel ci bor moo xam day marchandise moo xam day wurus ak xaalis moo xam day ñam ndegam moom dellale jëm rek duñ nangu ñu juboo ci waa ji wàññil ko nam toll woon mu fay lu yées loola te mu fay ko fi saa sa bañ a xaar délai ba loolu duñ ko nangu mukk mukk loolu la ñuy wooye ci téeri fiq yi daa wataxajjal maanaam wàññil ma li ma la ameel te ma fay la ca des fa saasa yi saasa mooy li ma la ameel boo ci wàññi nangam la des moom ma daal di koy fay fi saasa yi saasa fekk délai ba ak séegut loolu dañ koy aaye saa yu nekk fépp lañ koy aaye moo xam lañ jëfalante woon ngir yàlla tax muy alxarb mbaa ba ñuy jëfalante bëgg bénéfice tax ñoo ci yemoo ba tey it ñu dem a dem ba ci délai ba waa ji war a fay ñu juboo nag léegi ci mu toppalal ko délai ba waaye moom it mu yokkal ko lim ko amee loon ni ki moom da ko waroon a fay nangam ni ki ab junni tey jii la ko war a fay ñu juboo ci mu toppalal ko nag délai bi ba muy ñaari weer te fay ko junni juróomi téeméer mbaa ñaari junni lu mel noonu bokk na ci araam araam duñ ko nangu mukk mukk ci genn anam moo xam lañ jëfalante woon day jaayante rek ku nekk bëgg bénéfice wala sax ba mu koy abal junni ba ngir yàlla dong da caa loru woon rek moo ko sasoon da ko abal junni rek ngir bu weer wi deexee mu joxaar ko junni bi nangu rek ñu àgg ca ñu juboo ci mu toppal ko dell bi te kooku yokkal ko dara ci junni ba loolu moom duñ ko nangu mukk mukk benn yoon lañu sopp kay mooy su ko mënee mu jekki-jekki toppalal ko dele ba ne ko may naa la nga wéy ba dele sàngam nga door maa fay fekk moom lam ko ameloon rek la koy fay du ca yokku dara loolu moom tuyaaba la cay am ndegam yéene na ca ngir yàlla wala taajilu xardin du caageenu gaawe marchandise xala siyaadati ci sar dolli nga fii ci moom ida kaana dem nekk na min bay hin tukkee ci jaay bu kenn ameelee moroom ma marchandise moo xam ne da ko ko war a jox ci délai sàngam laata ñu àgg ci délai boobu nag mu ne ko ah man day mën naa la koo jox léegi léegi te yokkal la ca sax tan bañ a xaar délai boobu ñëw loolu day bu fekkee ni moom dañ koo jëfalante woon ci wàllu jaayante mooy kenn ku nekk bénéfice rek nga bëggan moo lool seenu jëfalante duñ ko nangu faaw dañuy bàyyi rek balaa kookaa mën a joxe marchandise mooma dañuy bàyyi faaw ba dele ba jot waaye du nangu mu joxe ko am lum ko ci yokkal te fekk dele ba ak seegut loolu la ñu tudde ci téere fiq yi xutta ab damaana wa asiduka wala mën ngaa jàng wa asidaka maanaam li ma la waroon a fay ci dele sàngam daal jekku naa ko lool te léegi lay dàq ci ma fay la ko ci man kon nag mën naa la koo fay ba noppi yokkal la ci nangam te bañ a xaar dee bañ waxan kon saa yoo ko amee li marchandise rek moom di nangu nga yokkal ko ba noppi fay ko ko fi saa su nga xam daal day jiitu dele ba nga ko ko war a fay ndegam nag kenn ku nekk ci yéen ñaar bénéfice doon wut bu fekkee nga yàlla taxaw ñu jëflante ko nag moom li mu wax mais wala bu as ayib bi tax ajéeli ci gaawem nga daalika loolee min xardin tukkee ci abal ngir yàlla ñu koy firee leb rek waaye lebal ngir yàlla tax ñu wax isa kaana dem nekk na al siyaare dolli nga fi sifati ca melo wa bu fekkee dafa soxla woon rek ceeb mbaa dugub mbaa lu mel noonu nga abal ko ci lim boo xam ne dalay delluwaat lu toll noonu kese nga xam ne ngir yàlla dong moo ko taxul ngeen seq ko kon moom daañu nangu wax donc war fay ak seegut nga fay ko ba noppi jox ko lu gën a baax ci qualité lam la joxoon waaw nga xam ne ni ki bëri ko bi nga koy delloo moo gën rafet bam la joxoon waaye nag gis na ne gën gi ci qualité ba la waaye du ci ëppante ci tolluwaay ba bu ne tolluwaay moom la ñu ba wax wa man radda koo xam ne delloo na fil xar bi ci abal ngir yàlla ak sara lu ëpp xadadan ci ab lim fi majlisil xadaay jataayu fay ga fa xaduxtali fa wuuteef na fi zalika ci loolee isa lam yakun yem amutoon fii ci moom chartun ab sart wala wa yun du caageenu ab dëhal wala aadat du caageenu aada fa ajaazahu daganal na ko ashhabu sëriñ bi ñu wax ashhab wa karihahoo te sib ku sibuk araamal ibnul qaasimi ibnul qaasim walam yu gis fu te dagana lu ko lee mu tuddee fi majlisil xadaay ci jataayu fay ga te ca jublu rek ci waxtu jotuk fay ga waxtu ñu waree fay rek la jublu ci fi majlisil xadaa su fekkee ne nit danga ko abaloon lu xeetoog marchandise maanaam daal loo xam ne du wurs du xaalis moom ko ko abaloon ngir yàlla doo nga taxantam nag ni ki nga abaloon ko bërigo pepp mbaa bërigo ceeb rek te yàlla tax bañ àggee ci waxtu ba mu ko war a delloosi nag ba mu koy delloosi mu nar laa jox lu ëpp loola ni ki bërigo nga ko joxoon mu nar laa jox bërigo ñaar fukki kilo waaye moom kat ci coobareem rek la koy defee du ab sart bañ ne yaa ko waxal ne ko faaw nga tegal ma ci ñaar fukki kilo ndax bu waa kon moom du baax ay woon nan ko bii tam moo la ko digoon ne la buñ ci àggee naa la ci tegal nangam ba tax laa nangu ko it xam ne ni moom du baax du aada itam foofa ndax kenn waru koo aadaal lu mel noonu moom daal moo jekki-jekki rek ba mu lay fay barigo ba mu nangu caa teg ñaar fukki kilo mbaa lu ko soob daal ci dolli waaye moom amutoon sart bu ngeen sartante amutoon ab dig boobu la ca digoon du aada itam foofa mooy jekki-jekki di ko def rek foofu ñaari kilifa yi wute nañ ci ashab nee na loola war naa dagan ndax dañ ko defalan njëkk rek mu fay njëkk la te rafetal fayin waa ibnul xaasib ne déedéet daga moom alxardu la mooy lu ñu def rek la ngir yàlla wuru ci nangu ñu tegal ko ci dara dara dara dara ndax dañ ne woon al qardu la yakunu illa lillahi subhanahu wa ta'ala ba tey nag wax ibnu xaasim yooyu la ñu sukkandikoo maanaam koo abaloon lu mel noonu bu koy delloo si mën na laa jox ne lu gën a rafet loola waaye nag mu jox ne lu ëpp loola ci tolluwaay moom duñ ko nangu jàppal ne loolu moo gën a wóor waman xaalihi koo xam ne war na ko danaa njiru ay dinaar aw daraahim wala ay dërëm min bay hin tukkee ci jaay aw xardin wala leble mooy wa abal ngir yàlla mu ajal ngir kuñ abal mu ajalin fa lëxoo ko ñeel na ko an yu xaj ci lëxoo mu gaawee ko xam la ajal yi njëkk àbbam ba dafa tudd rek ay dinaar ak ay dërëm waaye daa bëgg a wax rek ne soo ameelee kenn xaalis kaas mu jëm dele soo ko mënee fay te dele ba ñëw guttam sañ nga ko koo fay te moom du sañ a bañ ndax dañoo jàpp ne xaalis kaas moom fab ko yoraale fu nga jëm yomb na kon nag boo koy fay rek moom du sañ a bañ ndax amul benn coono ca loola waaye nag nee nañu bu fekkee kat dëkk ba nga koy fayee bukkut ak fam la ko lebaloon maanaam bukkut ak fa nga ko war a fayee kat te diggante bi am na coono war na cee fayaat dara mbaa mën nañu koo tafu ci yoon yi ragal nañ ne daal bu tuut àgg ak jàmm yombut sañ naa bañ ne la faaw kat da ma koy joxe fa ma ko war a joxe waaye bu fekkee daal amul dara luñ cee ragal moom ñàkk ak cig dele ba maanaam ñàkk yëg cig dele ba nga ko war a fayee du teere sañ nga koo fay te moom du sañ a gàntu ne bala nga maa fay nu àgg ci dele ba mu war a fayee foofu nag duñu seet ba xam nu ngeen jëflante woon ba loolu dox seen diggante mën naa doon muy jëflante ak jaayante maanaam ku ne dara wut rek bénéfice mën naa am itam muy jëflante ngir yàlla mooy kee daa able woon rek ngir yàlla ndax gis ne kee loru na ja wa kazalika naka noonu la ñeel na ko añu xajji la mu gaawe alxorooda marchandise ya wa taxaana ak ñam wa min xardin tukkee ci abal ngir yàlla laa min bay hindu ci ak jaay ba tey boo amee ne nit marchandise wala ñam waaye dala ko abaloon rek dala ko abaloon rek ngir yàlla dàq bénéfice taxutoo ngeen jëflante ko ba tey kooku nee na bu fekkee dale bi ak si tam du tee rek soo ko amee mën nga ko ko teel a fay fa saasa du aajowoo ñuy xaar dale ba ñëw mel na rek mu lebaloon la pepp ndax boobu daa fekk sa pepp jeex ngeen juboo woon ci pepp ñoree diggante bi far yàlla andil la xéewal nga am pepp ma kon mën nga ko jox du aajowoo ñuy xaar ba waxtu ñu waxante woon ndax loolu dug jaayante cosaan la abal ngir yàlla rek la woon su boobaa moom mu able woon ngir yàlla buñ koy delloo loolee du saña bañ a nangu lu may nag da koy joxe ci beneen dëkk bu bokkut ak fam ko ko abale woon te diggante bi am na peen maanaam am na coono ci sufeku fii yóbbu foofu mbaa luy wóora di ci duwaañe yooyu su boobaa kat moom day wax ne ah déedéet dañuy bàyyi ba faala ko joxe woon nga delloo ma ko foofa nga seetlu lee mu ne laamin bayhin mais bu fekkee la taxoon mu ameel ko ñam wa mbaa marchandise ma ak jaayante la mu jëm ci dele kon bu neexee moom mi nga xam ne moom lañ ko ameel mu ne ah dañuy bàyyi ba àgg ci dele ba ndax foofa laa ko soxlaa soxlaa guma ko léegi kon bul jaawale min xardin ak laa min bayhin te nga wees woon ci gannaaw nag moom ka ameeloon waa ji marchandise mbaa ñam da koo nangu woon a fay fa saasa am lu mu ko ci yokkal fii nag moom da ko bëgg a fay rek noonu te sax amul lum ko ci yokkal dara dara loolu daal bu waa ji nangoo ndegam ak jaayante la woon su waa ji nangoo ci ñu fay ko ko fi saasa loola baax na waaye su ne faaw dañuy bàyyi kat ba ci délai bañ ko waxante woon ndax booba laa ko soxlaa it ñu ne ko sañ nga loolu. wala yajuusu du dagan bay un samarin jaay meññet aw xabin wala am pepp lam yabdu moom feeñut laahuhu yiwam nga yiwam nga mooy ñoram nga maanaam. meññet mbaa pepp yemoo doo ko mën a jaay te du daa ñor bu baax bu fekkee ñorul rek kenn du ko mën a jaay ndax xamuñu ba xam dana am gàllankoor ba du far ñoram déet faaw ñu bàyyi bam ñor ñu doo ko mën a jaay waaye juus dana dagan bay xoo jaayam nga isaa ba daan dem feeñ na salaahu baadihi yiwuk lennam wa in naxlaban ak doonte genn tàndarma la min naxilin ci ay tàndarma kasirit ni aji bari ne bu dee ay tàndarma wala beneen toogaru xeet doom yi bu tàmbalee ñor rek mënees naa sukkandikoo ca la ñor far jaay lépp benn yoon mel ne toogaru tàndarma la gis nañ ak tàndarma goo xam ne moom ñor na bu mel na war a mel kon mënees naa sukkandiku mënees naa sukkandiku ci googa far jaay lépp benn yoon lu may nag loolee nga xam ne moo ci njëkk a ñor kat day njëkk a ñor naka jekk ya ca des ni kii boo dee seet fii ni ñuy bayee sub léeg-léeg toolu sub bi man nga caa bay sub ñoo xam ne day teel a ñor digganteem ak ñeneen sub di ñor danay soree su boobaa nag kon loolee teel a ñor rek moom ngay mën a jaay waaye doo ci mën a sukkandiku nag jaayaay la nga xam ne moom ñoragut tàmbaleegut a ñor su ko defee nag leen lu nekk am na luñ jàpp ne mooy ak baaxam ci ñu mën koo jaay bu fekkee ne tàndarma la bu demee ba wicc wicc ga mooy tàndarma ji dem ba xong mbaa mu roos muy puur mbaa boog am na xeetu béngal yoo xam ne bu demee ba neex na mu war a neexi rek su boobaa manees na koo jaay reseñ ak figg su demee ba neex lañ koy door a mën a jaay banaana bu demee bay waaji ñor nga xam ne boo dee xool jëm ji ni mel ne muy jëm ci ñor manees na koy jaay bu dee loo xam dañoo soxla ay tóortóoram ay fleur la ni ki ward wala yasmin ak yooyu su demee ba tóortóor yi fett rek manees na koy jaay bu dee lu mel ne lujum ni ki nawe ak karoot ak soble gi demee noonu su demee ba nga xam ne manees na koo buddi jariñoo nga xam ne nii buddi ko du ko tax a yàqooti manees na koo jaay xaal bu wert bi ngay gis nag bala ñu koo mën a jaay dañuy seet ba xam lu nekk ci biir muy ñam wa bu dee ñuul ñuul la bu dee xong xong na bu melee noonu rek manees na koo jaay bu dee ko taxu suukar moom faaw day dem ba neex na suukar di neexee bu dee lu mel ne koko wala lu mel ne dégit su demee ba wow lañ koy sañ a jaay nga ñëw nag ci lu mel ne suunaag saañoog beleeg yooyu moom day aaju ba mu dem ba ñor boobu koŋ te yooyu sax lenn la rek tàmbalee ñor boobu du tax nga mën caa sukkandiku daal di jaay lépp lépp déedéet moom faaw bu dee lu mel ne xeet duub noonu dañuy bàyyi ba lépp ñor boobu waaye ñu mën a sukkandikoo ci lee moom ñor na boobu rek niki mënees na caa boolu mbaa lee tàmbali naa wow ba mënees na koo dagg jox jur gi tax ñu mën a jaay lépp te lépp ñoragul ba wow déedéet takk-takk bi daal mooy leen lu ne bala ñu koo mën a jaay na àgg ci anam ga nga xam ne dees na ko mën a jariñoo ci anam ga gën a mat walaaye jo sut ragan bay xumaa jaay la nga xam ne fi anhaar yi nekk na ci dex ya wala bira ci ak taataayu ndox ya wala dégg ya dina la xiitaani ci ay jën dañuy boole ci sartu jaay boo ko jaayee ba nag mu mën a wëlbati ko jébbal ko ne ko mi ngi nii kon nag jën yi nga xam ne kenn nëppagu ko mu nga ca ndox ma kenn mënu koo jaay wala bay fu jën yi ni du jaagee lu jaay mbéembur fii batt ni ummi ci biir ndeyam mbéembur mooy lu ñu ëmb te ci doogut xamuñu sax dee na ci biir ndey jaam déet wala bay xumaa du jaagee lu jaay la nga xam ne fii botoon yi saa irin xayawaanaati nekk na ci biir yi mboolem lu nët yi léemu njëkk wax rek doy na mën naa doy léemu njëkk wax rek ndax dane mboolem dund yi mboolem yi am ak ruu ñooye moo lañ ëmb ca biir mënu koo jaay lam njëkk na wax ne yóbbaale woon na ko wala bay xu nitaa jima du caagee nu jaay ngirtel la nga xam ne dun taju dana ko jur ñu koy tëgg jëme ci mafoon nag waaye maxnaam dañ koy firi pirim tëgg jëme ci faayin dañ ko aada woon noonu def ko tun taju an naaxatu nàgg nga maanaam loolu mooy jaay mbéemburum mbéembur loolu moom ku ne xam na ne yoon du ko nangu ndax dafa aaye woon léegi jaay mbéemur mbéemur mooy la nekk ci biirub yaay ja te juddoogut mbéemburu mbéemur nag mooy loolee nekk ci biirub yaay ja dañ ko jëlali waaye la ñuy waxaale kay mooy bu juddoo bu ëmb nag loolee muy ëmb bu juddoo bu ëmb la mu ëmb ca biiram mbaa bis bu demee ba jur ko ñoo ci yemoo rek mu ci mën doon moom ndegam dañuy aaye jaay mbéemur kon mbéemurum mbéemur waxaale wuñu ko wala bay xamaa du caageenu jaay la nga xam ne fii zohóorin ibiri nekk na ci gannaaw yu gëléem ya la ci gannaaw yu gëléem ya mooy ndoxum mën yi mu nga xam ne ci la yàlla y sàkke yooyee muy sàkk muy juddoo ca gëléem ya dugalim dong fa ci la manam dal jënd ndox manium gu góor ga mooy nga ne ko sa gu góor gi sama gu jigéen rek lay àndal du ànd geen geen gu jigéen xam nga bu yaa dugalee kuy lool fas la wala kuy gëlim la baax lool lool lan la jaral nga ne ko léegi jënd naa ak ngóoraam nga xam ne léegi sama yu jigéen képp lay àndal waaye du ànd yu jigéen keneen ndax boobaa xam nga yooyu daa baax te yow dong yaa koy am dan la jaral nga fay lu seer a seer te mu jaral la ko ndax boo ko amee yow dong la neex nga koy jaaye waaw loolu nañ koy aaye ko duñ ko nangu nangu nañ daal léegi ngeen juboo ci mu boole gu góoram ak sa gu jigéen tàmbalee bis sàngam ba bis sàngam ba wax sàngam ba heure sàngam jàkkaani war naa tegu bu ko defee nag léegi nga fay ko nangam waaw loolu moom daañu ko nangu wala boog bu ko tegee benn yoon ba ñaar ba ñett rek moom mu fay nangam loolu yëpp nangu nañ ko wala bay aabas du jaagee du jaay jaam bu daw wal baa ngi di ak gëleem ashaadid guy aji dàngan bokk na ci sart njaay bu ngeen jaayantee ba noppi nga mën a wëlbatiku jébbal ko ko léegi nag lu lu jaam bu daw jamono jaam amee bu jaam xasee daw doo ko mën a jaay ndax xamuñu ba xam des na ko jàppam nit gëleem gu dàngan teg njëxam mooy gëleem gu dàngan googu des ko mën a jaay ndax xamuñu ba xam da ko mën a jébbal ki nga koy jënd ki mu jëndam nit wal nox yee tereef na am bàyyi kilaa bi wëlis jaay xaj ya xaj yonante bi ci bopp moon aay ku ko jaay moo tax xaj moom di nangu mukk ku ko jaay waxtu li fa wuteef na fii bay ximaa ci jaay xaj ba nga xam ne usine digleef na fit ci xaas yi ci jàppam min xaa ci xaj ya maanaam bu dee xaj boo xam ne dañ koo jàngal ba mën a rëbb mbaam mën a sàmm ak gétt mbaam mën a sàmm kër yu mel noonu ndax wuti naa xaj yi bañ mën koo jaay wala déet loolu am na wuute wax ji gën a wër mooy déedéet kenn du ko jaay ndax yoon dañ ko aay rek wax ji gën a wër mooy dañ ko aay rek xaj moom kenn waru ko jaay wa amma man daal ka nga xam ne xatala xoree na ko fa xale yi war na ko xiimatu ko xaymaam boo toog wax ñu wax ni sañes na ko jaay nag kon ku rey xaj bu mel noonu war a fay borom xayma ja mooy ñu seet wëlër wa nga fay ko ko de bu dee xaj boo xam ne moom kenn sañu ko wut ndax nekkul xaj bu ñu jariñoo kooku moom ku rey itam fekk mu am borom it doo ci fay dara te li mu wax itam ci fay xayma ji day fekk rek nga topp wax yi ñu wax ne xaj mel ni sañes na ko jaay wala yajoo sut dagan bayxul lax mi jaay yàpp bil xayawaan jëndi aw lunat min jins yi ci aw xeetam dañuy bañ nga jox ko yàpp mu jox la loo xam ne kenn ren déggu ko ni ki tey nga jox ko fukki kilo yi nag fukki fukki kilo yi yàpp nag moom mu jox la ab gàtt loolu jaay yàpp jëndi aw lunat la loolu dañ koy bañ bokk na ci araam nga jox ko yàpp mu jox la loo xam ne aw lunat la dañ bokk aw xeet bokk aw xeet mooy borom ñeen tànk yi xamul yépp wenn xeet lañ yi naaw yépp wenn xeet lañ duñ duñ duñ ci nangu lu mel noonu wala bay xataan du caagee ni yaari njëg fii bay xatin ci menn njaay wa zalika te loolee an yestorie mooy mu jëndee seen xatan am marchandise ima bi xam sit benn ci juróom naq dan ci teew mi teew aw xasit wala fukk ila ajun jëm ci bàpp nga xam ne xat la si matu war na ko bi ahadi samanay ni ci kenn ci yaari njëg ya loolu mu ne wala bay xataan fii bay xatin dafa ñëw ci addis ba bu yaxub addis dikkee léeg-léeg ni ko waroom ngir yi déggee day wuute waaye bii moom ni ko yoonu maali déggee day ñaari anam moom mi taalif nag mu tudd benn bi benn bi mu tudd nag mooy ki ngay jaay nga ne ko marchandise bi boo ko nangoo jënd fi saasa dama la koy jaayee nangam fekk loolaa gën a néew bu fekkee nag day jëm dele moom dama la koy jaayee nangam te loolaa gën a bari loolu moom bu fekkoon ne da ngeen di juboo ci moom mooy seet na ko neexee bu ko neexee jënd teew mi teew fay njëg gu néew bu ko neexee jënd jëm ci dale fay njëg gu bari bu ko neexee te mu bàyyi bañ a jënd nga dem mu dem loola dara nekku ja li ko yàq kay mooy nga ne ko bu dee teew mi teew ci misaal maa ngi la koy jaayee juróom bu jëmee bu yor yu dee maa ngi la koy jaayee fukk waaye nag bala noo wax dara dara dara danga may dogul ne ma faaw da nga jënd doo dem rek bàyyi ma boo dogoo ne ma da nga jënd ba noppi nag lu door a seet ba xam na ngay jënd ci teew mi teew ci juróom am na ngay jënd ci fukk jëm dele la yàq foofu njaay ma rek mooy teel nañoo dog xaat njaay ma te xamaguñ ca dëgg-dëgg nan lañ juboo ñoom ñaar xam ne ba léegi xamaguñ njëgg teel nañoo dog njaay ma te ba léegi xamaguñ gan njëg lañu topp ñoom ñaar kon lay aaye woon ci umpule njëgg dal nay feeñ foofu ca dañ jëflante waaye nag bul fàtte ne saa yu nekk yow mi jaay sañ nga ne lii daal ku koy jënd teew mi teew nangam daal la koy jaayee ni ki fukk kuy jënd nag te li ma fay bu weer wi deexee maa ngi la koy jaayee ñaar fukk mbaa nangam loola ku nekk sañ na ko waaye bul fàtte li ñu wax fii nag mooy boo ne ko faaw nag danga may dogul ne ma da nga ci def lenn ba noppi nag mu door a seet lu mu cay doon ah loola moom mooy yàqu jëflante ga ndax kon day mel ne dog njaay ma te xamuñu gën njëg lañ doge njaay ma wala yu sutta gan bay xut tamru jaay tàndarma bi fufta bi jënd mbënax tamru mooy tàndarma ci ñor boobu mbënax mooy ñor ba noppi tooy ci gàttal rek mooy dañuy bañ wenn xeet kee di joxe kee di jaay lu wow lañ koy fayee nekk lu tooy bu doon ci gerte it noonu la kee joxe gerte googu kee joxe gu tooy loolu lañ koy aaye ndax ak naxante lay doon duñ xam la tooy bu demoon bu wow nu muy toll moo tax wala zabi bi du jaagee nu reseñ bu wow